am ñuy wax soixante cinq mille benn jamono ñu mujj yegg ba ne benn homme d'affaires taxaw ne maa ngi gis sax ay nit di ko waxal muy xaw ma nan mbuub musaa Mbuub xaw ma xaw ci mbuubeen yooyu xaw ma saaliw mbuub su ma su ma juumee damaa jàpp ne quarante huit mille xaw ma trente huit mille benn la ci damay bañ a wax lu ma leerut mais Sénégal boobu kitu jalis mhm. seer fi mais centre dialyse yi nga waroon a defar. te defaroo leen. Touba ñaata département. ñooy bopp di ko jege ci wet googu. di ñëw di ko fa defee. léegi nit ñi dama dem ba nombre bi war a dialyser am ci ñoo xam ne xam nga lan la ñuy xaar. kenn faatu pour ñu jël place am di def jalise normal. Mhm. su nekkee ne yaa ngi koy def ci privé yi du feebar bu ndaw. te alors man am naa sama benn xarit loolu sax kit bi la ñuy wax mais am na bloc boo xam ne 16 bi. Mhm. ak équipement bi mu àndal lépp lépp lépp lépp matut un million huit cent huit cent et quelques mille sama benn xarit Babacar Niang maa ngi koy siyaar mi ngi aussin tey tey tey ku ko bëggoon mu indil la ko nga xam ne nombre de dialyse bi ñu war a jël nga xam ne état daf koy subventionné nee na mm-hmm. moo tax jëlu nombre boobu nga xam ne lu tuuti la ñuy jël ci ñoom ñuy faatu ñaata nit a faatu ci fukki at ak ñaaru président Macky Sall yi mm-hmm. lu tax ñu faat faatu ñàkk ay moyen mais ñaata nit lañu war a tabaxal hôpital mm-hmm. ñaata nit lañu sàggane bañ a defar tali bi normal si mm-hmm. am bañu ñu faat loolu yëpp koom-koom moo koy defar kon koo xam ne tey téye nga koom-koomu Sénégal ci lii di fen ci ay chiffres ba mu jur ay nit faatu ci sans compter ñi nga xam ne faatu nañ parce que lan dañu taxaw di ko dénoncer parce que dañoo gis xam ne lii ñuy def dara jekk jekku ci dara jaaduwu ci mm-hmm. tax ñu leen di tëj maanaam ñu tëj seen gémmiñ ni ñu tëjee seen gémmiñ mooy benn maanaam xup xëpp leen alal mbaa ñu xupp leen mooy menacer wala ñu faat leen lii mooy li nga xam ne moo ci am solo démb dama noppi bi première ministre di di di di wax sama xol bu tàngee yenn saa yi bu mu nekkee ci yenn euh, tolluwaay yi damay bind damay jël rek di bind li may bind sax moo pare du bokk ak mu doon bind ni muy ah, rafete parce que ah, tellement ni ma parce que man noonu laay exprimer parce que yàlla dafa dogal am na ñoo xam ne mhm. ñu amee leen na xarit dañuy jooy man dama bokk ci ñi nga xam ne duñ jooy maanaam man ci bind laay laay exprimer woo ci may li ma bind bokk na ci dama ne lan mooy suñu ñu ñun mooy waa réew mi ci lii am nañu ko ci jëloon ñu néew a néew a ginnaaw bi mu mu mu bari mais lan moo doon eh, responsable tu gouvernement wala membre du gouvernement ku ci bokkoon te waruloo dindi li dindi woo mais même responsabilité FMI. parce que FMI mënoo na yow ñetti weer yu nekk nga ñëw biir Sénégal càmbar état bi nga xam ne moo fi nekk. ba pare lu mel nii di mën a am man doone ma da ñëw ñu fen la ci ay chiffres rek nga ñëwaat am lu doxut. Mm-hmm. nit ñi di ko yëg parce que tey problème mooy croissance nit ñi dañ ko war a yëg. bu dee suñ croissance dañ ko extraverti yow nga ñëw ci base yooyu nga war a lebal nit ki pour xam ne kii santé de finance am jaar na yoon. Mhm. mais nga xool ko mi ngi mel ni rek mu médecin bi diagnostiqué affaire bi am koo xam ne ay tappale la. température bi romb douze dem ba dix neuf wala mu nangam ñu ñëw ne la yow sa température dafa basse maanaam onze la. maanaam tey ki ki ki nga xam ne tey température am dafay wàcc nga dem di ko jox ay vitamine C li jëm ci ay orange wala pompe li ma moom dal mais da ngay faatu loolu mooy li nga xam ne tey mooy responsabilité FMI ci mbir mi man pour man dama leen ci génne pour man dama leen ci dugal ci biir ne seen responsabilité ci la mais responsabilité suñu ay kilifa suñu ay imam am na ci ñu ko doon joxe mais responsabilité même suñu ay animateur u mhm. euh, télé wala ay journaliste yoo xam ne ñi ngi doon gis mbir mi dama mos a gis seen benn naataango Makumba Bey mu def benn éditorial ci wàllu pétrole Sénégal affaire mhm. Aliou Sall ak yooyu mais bi mu ko defee tellement affaire bi ni mu dale ma wax benn waaye ma ne ko soit mu continuer ñu dàqe ko fi mu nekk mhm. wala mu mu mu mu njar bisaabam mhm. après loolu laa mujj gis ci Makumba Bey mais ci noonu nag laay jaajëfale ñi nga xamoon ne jëloon nañu seen responsabilité tel que Pape Alé Niang Clédor Sène Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. mais surtout di ñaanal yàlla xare ko aljana benn producteur ci wàllu filmu téléfilmu. bu ñuy wax déedéet. Euh, moom la ñuy wax Even Prod. production Idole. Idole kooku Moussa Gueye. defoon benn film boo mm-hmm. xam ne. Mm-hmm. moom lañ doon tourné mu amoon benn journaliste bu nekkoon personnage bi qui s'appelle Malick Ndiaye taxaw di dénoncer jalgati gouvernement bi ñu nekkee woon mais mu amoon benn ministre bu yor wàllu finance ak yooyu di dóor alalu Sénégal ñu wan la ci këram doom ba doomam di drogué mhm. ci xaalis bu bon mais mu am beneen ministre de mhm. l'intérieur boo xam ne kii sa euh, ku sant Ndiaye ci biir mhm. per film bi di bundoxataal nit ñi di jàpp nit ñi di rey comme ni nga ko doon mën a gisee ci film boobu booba yeggaguñu fii te loolu def na déclic ci ndaw yi Sénégal yu bëri. Mhm. mais lan la ñu gis. waa jooju faatu yàlla na ko yàlla yërëm Moussa Gueye. Mhm. Ibou gay ñëw jël boîte bi. seere ko taxaw nañu ñun waa Sénégal maanaam bëgguñu lu baax parce que idol ka kenn daaw ñi ko daan seetaan bëriwuñu. te mu wóor ne waxu dëgg. man ma bokkoon ci ñi ko doon seetaan di ko partagé comme nit ñi di ko topp. Mhm. kon fi loolu nga xam ne dañu yàgg di distraire dafa dem ba état bi fi nekkoon dafay bëgg ay ku koy tefal. ay téléfilm yoo xam ne ay maîtresse d'un homme marié di pervertir xale yi mm-hmm. xale yi dem ba def ci seen jukko surtout xale yi jigéen yi buñ baaxee lépp baax mm-hmm. nga gis léegi li ñuy def mooy nga juddu màgg nekk sa kër baay mat a dem kër mm-hmm. mais doo am liberté parce que yàgg say rakk yéenay bokk kër mais li ngay def mooy dugg ci mel ni yambar mu mel ni saa wolof ngeen mu takk la même pas yi mois nga tappaas ko ñaan baat boo noppee doo demaat seen kër parce que sa néeg xale yi nekk nañ fa léegi nga ber beneen man faa def leneen ak leneen bonjour les dégâts. Mhm. yi fi am yëpp di fi am. xale yi di mbëkk. barça wala barsaq. Mhm. loolu li ñuy yóbbu foofu ah, ñuy pervertir nit ñi di jël nit ñi di leen jox alalu Sénégal pour ñuy tëgg làmb. Mhm. ñoom nañ tëgg làmb rek pour nit ñi concentré wu ci làmb ji mais nag dañu amoon benn don bu ñu fàttee muy la don Sonko. am ay nit yoo xam ne dañu jóg ànd ko ak moom man dama naan Sonko indebee ko suus. comme ni mu suusee joomaay suus saa wala suuf neneen suus neneen. mais mu fekk fi ay mag yu am solo man dama toog ñetti at ci ginnaaw bi may wax naan Sonko day jël réew mi xam nga fan laa ko teg dama commencé gis sam comportement bi mu yore. man sam papa moo ma yàgg a wax debal Pastef ma ne ko non politique dugguma ci parti damay jàppale kii rek bokkuma sam papa sonn ci. mais nga commencé gis mag ñi di ci sonn comme mag ñu mel ni ngay wax ay mag yi Pastef ñii dañoo instructuré bokk ci parti bi mhm. mais y a de mag yi Pastef yoo xam ne man bi ma gisee ñu ñu taxaw jàpp ci mbir mi laa ne neex naqari Sonko day yegsi mais Macky Sall moo la ko gën a xam parce que xamoon na ne kii day dem léegi looloo taxoon nag sos yi mm. moo taxoon faat yi mm. moo taxoon euh, tuumaal yi mm. moo taxoon tegal la ay dossier monté ay dossier li ñuy wax ay conspiration ba mu mujj nekk complot lii ñu génne démb nag ñun ñëpp ko gisandoo responsabilité kenn ku nekk la ci ñun kon tey mu taxaw jëm ci Sénégal boo xam ne dëgg jub jubal jubanti da nga bëggoon a préféré état bu lay fen wala déet nga continuer di torox ba kii wala état bu lay teg ci dëgg ngeen ànd doxal réew mi voilà lii laa ko voilà euh, bon euh, Naël xam naa nag du ñàkk comme ni ma ko waxee rek xëy na bu ñu bëggee duggu ci euh, ci forme bi peut-être que ñëpp comprendre nañu en quelque sorte wala chiffre yi également ndax mm-hmm. déficit budgétaire bi nga xamante ni de mille 2019 à mille 2023 foofu waxuñu fa bu ñu sukkandikoo ci ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu wàllu koom-koom en quelque sorte weddi na ko nii chiffres yi ñu joxe ay faux chiffres la. Mhm. maanaam bu ñu nee def nañu a wax sénégalais ni ni cinq la ñu def alors que ci suuf perte nañ lu lu presque dix wala cinq yu ñu waxul sénégalais ni mu ko arrangé ba ba deux mille vingt trois ba deux mille vingt quatre. Mhm. gàcce la si ñaan ñenn ñu forcément mais est-ce que euh, responsabilité réelle bi nga xamante ni gouvernement